Touba Allemagne mooy chaîne bi nu mënul ñàkk waaw mooy chaîne bi xarañ lool ci liggéeyub sëriñ bi te gëstu dawal YouTube nga bind Touba Allemagne te abonné bés cloche notification bi ngir mën a jot bismillaahi yan noonu haay bilaa manaay walandi haay hamdan li rabbi xayri murabbi xadram xalbi bil ihtidaay loo sukoori bilaa kufoori وهو النسير منه فداي لو ربي للا اغترابي لو خطابي ما ددائي لك ردائي لك سنائي لك التجائي ما ددائي يا من سفاني يا من حماني هم جفاني بمحفدائي أسبل ستوري أسلح أموري كسر خيوري بلا كداي يا من أجاب من استجاب هب لي إجابة في سنداي يا من لي جميعا مكاني ست أماني هب سماني بس البقاء عند سلوكي إلى المليك ما ينفوكي مغني النفاي عند الجميل لك أمين عند الرسول بلا جلاي لك لساني مع الجنان ولا أداني كسر أنت سبيل بك الوصول لمن ينير خير السراي أسبته لي أسبت خير كما الدراهي كالكبراي

bi xayri juuri ولا فتاي لك التفات يا سلاتي بعد سلاتي ما سناي عنك رديد بك النسيد كما غنيد عن الغناي لك امتداي يا ذا سلاي يا ذا الفناي يا ذا الغناي فيك أنادي waaw di santati di santati di santati di sant di sant Cheikhul Khadim di sant Serigne Saliou borom jamono di sant Serigne Cheikh Saliou Mbacké sunu sang bu tedd bi waaw di ñaan mu yàgg fi lool nag te ànd ak wér yàgg ñoo woo ci liggéey bi yàgg ko wuy si di ko def ci anam yi gën a nose ak yi nga xam ni moo gën a tawféexe mu dëppoog ak bëggam ak li Eh, digal taalibe yi ñu ngi sant bu baax a baax a baax sant nañ leen bu baax ñu ñëw ñëpp ak ñu amoon yenee ñëw ñëpp sant nañ leen eh, tey ñaan suñu borom defal ñu yàgg koo teewe ah, waaw waaw góore murit ay ca murit dagg dagg dagg dagg dagg murit <laughs> sant nañ de sant nañ de ndigal li moom biñ ko déggee lañu xam ni lépp mat na ndax ndigal day ànd ak ndimbal ndigal day ànd ak ndimbal te ku tedd ku mel ni Serigne Cheikh Saliou nag bu la digalee rek xamal ni ndigal la moom def na ci loxoom bu yàgg boo ji sabablu da ci def pastif rek la nga bëgg sëñ bi bëgg ko suñu borom dina la ko may nga defee ko ci anam ñu gën a taw tawféexe ñu kawe sañ njort waaw moo tax ndigal moom day ànd ak ndimbal moo tax ñun bañ ñu digalee rek lañ xamee ni lépp sotti na ci zaahir ak ci baatin nag wallaahi barki borom Tuubaa waaw sëñ Tuubaa kenn te li liggéey sëñ Tuubaa bu wér la bu wér liggéey sëñ Tuubaa bu wér waaw képp ku kuy sàkku liggéeyal sëñ Tuubaa buñ la woowee ci waar wi da ngaa war a fëx kenn waru laa soññ waaw ñu ngi sant bu baax <laughs> jërëjëf

so daal comme ni leen ko waxee suba ba léegi fii ci Touba Xelkom ànd fekk euh, jëwriñ Jiiru Touré mu ànd ak mbooloo mi nga xam ne ñoom la àndal jóge ko Dakar ñëw fii ci liggéey bi nga xam ne Serigne Cheikh moom Serigne Saliou woote na ko muy ngóob dugub ji démb ci guddi lañ fi ñëw am na ñu fi jiitu woon tey jii nag ñoo ngi fii ba ñu jógee ci tool yi ñoo ngi tàbbi si fii nga xam ne moom mooy waañ bi ci mbokk taalibe yi nga xam ne ñoom ñooy waaj xewal yi ñu bëgg cee waxtaan ak ñoom ci lenn ci leeralu waañ waañ bi ak Xelkom ku ne xam ne tàngoor yi metti na mbooloo mi bari na nan lañ ko fas yéene doxalee ak kàddu yi nga xam ne moom lañu yëkkatee jëmale ko ci sëñ jiili mi nga xam ne ni moom moo jiite liggéey bi kon jëwriñ ginnaaw bañ la nuyoo siyaare la ah, di la masaw ci tàngoor weeg yëpp xam naa ngeen dikk tuuti rek ci li nga xam ne moom mooy liggéeyu Xelcom gi li tax mbooloo mi ñi ci ëpp nekk ci tool yi yéen ngeen opté ñëw ànd ak tàngoor week saxaar seeg tàngoor wi nekk ci weñu waañ wi ngeen opté ko ñëw nekk fi asubillahi mina seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim ñoo ngi sant nag jëwriñ ji nga xam si moonu booleeg sëñ Cheikh Saliou daa nañ liggéey nag sëñ Saliou jamono yi di doon tuut tàng waaye comme liggéey bi nga xam ci taxaw nañ ci ginnaaw yàlla buñ ci liggéey tey bàyyi jilee tax kon ñoo ngi koy jaajëfal di ko santaat bu baax a baax a baax di ñaan yàlla yàlla dolli koo kàttanal ci barki sëñ Saliou bi muy liggéeyal laaj nga nag question boo xam ci man dama ci sawar a tontu muy wàllu xidma xidma nag boo ko déggee yaatu na ndax ëmb na ay kuréelu kuréel waaye si biir yaatu googu lu doy waar la ndax ku siis du ko def ku nay du ko def ku iñaan du ko def kuy bedd du ko def waaw xidma yow yaay sol jëmmi nit ki lim indi nga mel ni moom mooy tax li ngay xidma mu mën a jàll ndax lu toll ne mbooloo moo xam ci daanaka am réew la ñoo ñëpp nu dajale la tegale ko sa kanam na la mbooloo mii ñoom ñoo lay liggéeyal waaye lay jëm seen biir yow yaa koy jëf ñu nekk si waaru yi di si liggéeyal sëriñ bi nu yaakaar ne bu ñëwee fi dinañ fi fekk xéwal yoo xam ci dana méngoog yaakaar jin fi am kon bu ñëwee fekkuñu ko fi rek day xaw a doy waar kon war nañ see mën a gën a góorgóorluwaat bu baax di sant ku mel ne jëwriñ Jaase mi nga xam ne ne si tey liggéey bi bu yaatoo ginnaaw yàlla moom moo tax mu yaatu ndax depuis bërki dem ba léegi moom moo ngi fi moo nu jiitu te bi ñëwee daa yaatal lépp jiital nu ma nag jiital gi ma jiital tim maanaam du jëmm ji xëy na tolluwaayu liggéey bi moo indi jiitalu jëwriñ waaye buñ jëmee ci ñaari saayir mooma ci ëppale fuuf buñ jëmee si at moo ci mag nga jëm ci wàllu xidmal Serigne Touba moo ma ci man fuuf waaye nag dafa am loo xam ci pas-pas akuk dogu gi gis si man moo tax mu am yaakaar ne bu ma jiitalee xëy na la mu bëgg ci liggéeyal Serigne Touba dina ko am ndax jiitalu ma ba pare di ma fakastal damaa jiital ba pare toppaat sama ginnaaw lu manqué mu mottali lu mat mu jaajëfal ak ku si mel ne jëwriñ Njaay mi xam ci lépp lépp bàyyi ji li moom la tey suñu teewaayu fii bu sottee jëwriñ Njaay moo tax ndax moo nu fi dajale nun ñëpp bi jàppee xel koom nee na ma carte téléphone dama jëwriñ Njaga xel koom gi jàpp nañ ko nu ngeen daan waaj waajale muy mel ne ñoo ngi ci waañu ba tey mën nañoo xam mbooloo mi ni mu toll ak bëggoon ko nu xayma ci ñaata mbana la toll ak ceeb yi yan xeeti ceeb laak wala ceeb yi ñuy dégg xel koom laak ceeb yooyu nga xam ceebu keccax laak yooyu ngeen dikk ci waaw aousubillah bisimillahi inna waliyallah wa ma tawfiq illa billah sadid lisaani nawil janaani safil amaani wasid brahim irham jami halwara yaa haadiyam raddaha ma xawtama xat naa xol bu mu darem bi jeexe afdala man lillahi xal la ja barkeb sëriñ Salim asalaamaaleykum mbokki julli di mbokki taalibe yi ñoo ngi leen nuyu leen siyaare bu baax eh, di rafetlu kàddu yi fi jot jaar yëpp di santaat Serigne Cheikh moom Serigne Saliou di ko ñaanal suñu jàmbaar ji suñu sang bi suñu borom yàggal ko fi te kàttanal ko mu dund dund kéemaan yàlla suñu borom mën na ko yàlla ko yàlla def yàlla ñu yàlla fayal ngën gi fay ñi ngi ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi noonu lañ koy ñaanalee sëriñ Modou Mbenda di ko ñaanal kulluhum ndax irham jami xal waraa ji tënk na lépp kon yàlla ñu ko sama borom defal ginnaaw nag bu ñu sant yàlla julli ci yenant bu sedd bu tell bi ñi ngi sant sëriñ Saliou Mbacke bu baax di sant suñu ñaari wayjur bu wér di sant jëwriñ yi nga xam ne ñoom lañ àndal ci liggéey bi dama ci jiital seen jiili ndax moom day suñ jëwriñ jëwriñ njagam yàlla dogal bi ñu fi dalay ñëw ba tey dañoo jël lépp teg ko suñu loxo waaye dañoo jël lépp moom ji jébbal ko ko ndax sëñ Cheikh Mbacke day wax ni ab jullit ab taalibe bu gisee moromam na ko def comme boppam ñun ci loolu la dox ndax moom lépp lu mu wax rek ñun bu ñu ko déggee dañuy dox ci loola. di ko ñaanal suñu borom yàggal ko te wéral ko daara ji nag bañ fi dalee dal ba tey mu mosuñu fee am benn jafe-jafe ñun ak ñu ñu àndal ñëpp ndax benn kàddu moo fi am. gannaaw ba nga xam dañoo jël lépp jox ko ci wàllu soxna yi ñu jox na ñu jël soxna Ndiaye muy jëwriñu soxna yi ñu jël lépp teg ci loxoom jëwriñu góor yàlla yi yëpp ñu teg ko ci suñu loxo ci wàllu waañ beeg organisation yeeg lépp. wàllu waañ beeg yëpp ñu jël lépp teg ko ci suñu loxo euh, yàlla dogal ñu koy doxal li nga xamante ne si moom la waree mooy bu ñu njëkkee ñëw daanaka mbooloo mi bariwut dañuy taal ay cinq mbana wala ay six mbana mais tey boo xoolee dal bi gis ni ñu ko defaree macha allah. ñu ngi taal vingt deux mbana nga xam ni maanaam dañoo bëgg dal bi li muy rëy rëy ak mbooloo mi li muy bari bari bari kenn du ni suuruma ndax dinañ lekk ba suur dinañ naan ba mandi te dinañ liggéey ndax liggéey moo ñu fi ñu bàyyi xel tamit ci ñi nga xam ne sama classe gi nga xam ne ñu xam ne li ñu indi fii du ay caaxan ndax ni ko sëñ Jaga waxee am na ñoo xam ne am nañ yéene ñëw fii waaye sëriñ bi woowu leen fi de. te wallaahi azim barab bii di xel xelkom ak fu mu mën doon dafa doon ci xel kom barab boo xamante ni si fu sëñ Saliou teg tànkam suuf sa day sàbbal suñu borom te suuf si képp ku ci mooy yàlla sa mooy ga dañ koy ful waaye képp ku fi jaamu yàlla sa jaamu yàlla ga dañ koy ful bis boo delsee dañ koy fut ki fi nekk nag daa am ndigal lu muy wéyee muy ndigalu Sëñ Tuubaa ndax Sëñ Tuubaa dañu woon maa ngi dem waaye dinaa dellu si jamono te bu ma dikkee naa tudd Saliou loolu doyut taxaw na ci njaareem kër gu mag di julli bi mu jullee ba sëlmal ci ak tuut tànkam ci zaahir sëñ Saliou ñëw taxaw ci kanamam yor ak këll di jaayu bi mu jaayoo ba julli ba noppi mu ah mu ne uh, sàllaaw de Saliou mi jamono la ma doon laaj te jox naa waaye bu leen ko xool ci tuut tànk gi daal ni ñaari addiyee nag ñoo ma dese ci àdduna ñu ne ko banam ban mu ne addiyee mbay ak jaxasoo ndaw ñi saa su fi Saliou ma ko jaxasoog ndaw ñi ku ne xam na ko sëñ Saliou daraan wax naan maa ëpp ku yàlla bind yàlla bindul ku ma ëpp yërmande ci jaam ñi waaye nit ñi war nañoo def taxaw seetlu foofu ndax liggéey suñ Tuubaa duñ ci yërëm kenn sëñ Saliou man maa ëpp yërmande ci jaam ñi ba pare daani ni waat du ma yërëm kenn ci liggéey suñ Tuubaa lan moo tax mu wax loolu mooy daa xam pay ga ay mbiram du hasard Serigne Saliou moom mooy sëñ Tuubaa sëñ Cheikh yàlla na fi suñu borom yàggal ko fi moom mooy sëñ Saaliw lii muy def amul ku koy def ci lisla ci àdduna amut boo kon ne tuuti ci kanam daara ju bees yi mu sañtan fii muy jës bu def fa lu jeex tabax fa jumaa ak daara yëpp daara jum tabax mu def fa jumaa lan moo ko waral liggéey yàlla te dërëmu état demu ci lii ñuy def moo gën a métti ci àdduna da ko koo laaj sànq muy ñëw ci waañ bi xet ma ab ñett yi bu génnee ci moom bokkatul bi xidmatin aw bi hubbi aw hadiyaati bu ci moom bokkutut dama koy wax sax ñi ci waayu man ko ñeen ñi ci tool yi man leen yéen yéen ñu nekkal foofu ñun ñu nekkal leen fii kon dem leen dallu ñun ñu togg xeweli ba mu baax ñëw jox leen ngeen lekk ngeen sant ñu sant te ñaan yàlla dajale ñu waat ñu fi lu wañ a yàgg ndax bàcc maa ngi ñëw waaw kon yàlla na sama borom dafa ñu tawfiix dafa ñu mucc gu ànd ak defal ñu sutura gu sax dàkk ci barkeb Serigne Saliou Mbacké bu déwénee bala ñoo ñëwaat fii suñu borom yokku ba nu yëg ko yokku nu ci sëriñ bi waaye nag na wëlbati suñu bëdi xol ba bu mu gis leen lu may Serigne bi ñoo ngi tuub baax tey jégaluwaat di santaat Serigne bi. jërëjëf jëwriñ kàddu yi mat na te rafet la te rafet na wax dëgg yàlla sant nañ ci bu baax a baax soññee ko nañ ci tamit muy mel ne euh, loolu lañ leen fii ci nga moom mooy waañu euh, Touba Xelkom ci mbooloo mi nga xam ñoom ñoo ànd ak sëñ jili ni mu ko waxee ñiy jógee Tiwaawan ñuy jóge fu nekk ci biir réew mi waaye ñëpp bañ fi dajee mënoo fee xàmmee ku jóge Tiwaawan ak ku jóge Ndàngal ak ku jóge feneen ñëpp benn la ñoo bokk bokk baay ndax ñoo bokk sëriñ bi ñu bokk yaakaar muy sëriñ bi nga xam ne nag moom dafa am dafa am fay nga xam ne képp ku ko defal moom moom mën ngaa mën na mën leer na moom bu ci dara ngistal uh, raxul moom sa payoor moom mi ngi toog di la xaar wax na ko ci biir waxam nee na dana dana ko ndem yeewu ma ko ma barkeeloo ko waykat bi tamit dégg naa ci kenn ci waykat yi nga xam dañuy way Serigne Saliou moo xam ne barkeelu rek la def réew mi yëngu mu mel ne tey ku ku néew ci réew mi fii danga ngay xam ne réew mi yëngu na boo demee ci tëli ba li fa gaara ci ay biisu damay faral di wax ne xel ko ngi bu fekkoon sëñ xaalis moo tax mu koy woote kon mun naa laaj addi yi ñu ciy def rek boobaa moo ëpp fuuf mbay mi ñuy bi ñuy génnee ci dugub ci fii xaas ba moo ëpp fuuf ndax oto yi fi ñëw yéen rek wax ngeen ne ñetti bis ngeen fi indi ñetti bis te leer na ma ne bis bu jógee Dakar li nga ko li nga ko fay lu mu bon bon 400000 wala 500000 ñetti bis 1 million 500 la bu ko beneen dëkk defee beneen dëkk def ko lu ëpp 1 milliard dina génn te gëm naa dugub ji mënu ci am kon nekkul politique moo tax mu koy def nekkul xaas moo ba léegi moo tax muy wax te nag ñëw gi tamit daa yombut ba mën nga koo bëgg te sëriñ bi du ko dogal kon nag nañu ñaan sëriñ bi ñun ñi nga xam mi ngi ñuy dimbali ba ñuy ñëw saa bu wootee mu saxal nu ci loolee waaw. loo gis nga fi nga jógee te li baag fii sore na ay 4 kilomètres mu taalibe yëpp dañ koo jaayante muy góor muy mag muy ndaw oto yi dañ dun ak agsi fii waaye bëgg sëriñ bi ak bëgg bëgg texey ëllëg moo tax ñu jaayante ko ndax buñ fàttalikoo ne mag ñu baax ñii xam ci noo nekkoon ci duniya jiitu ji doxee nañ fii jëm Màkka ngir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu sëriñ bi war na noo jaral ñu nit ñu doxee fële ba fii ngir jëmmi sëriñ bi te biñ koy doxit ak yëg-yëg lañ ci am ak tawfeex gu gu tawfeexu sax ndax jëwriñ jaase mii bi ma ko woowee mu ne ma yoon wi dañ koy dox dama ne ko de fu mu jaar rek jaadu na nu jaare foofu kon tawfeex gën ci am rek ku si nekk bi nga ñëwee da amaat yëg-yëg ne li nga doon dox sax xeeb nga ne lii du dox te kenn waralu ko lu dul benn jëmm muy Serigne Touba kon yàlla nañu ko yàlla fayal yéen it yal na yàlla comme li Ndiaye si wax yal na yàlla guddal seenu fan wéral seenu cër lii it balaa déwén yal na si yàlla def ak yokkute goo xam ci da dem ba yëg ne fii ngeen teg seen tànk muy suufu xel Xelkom du asaar borom suuf si nag attan na ko te mën na ko te ku ko lebal benn mu fay la fukk kon yàlla na boole fukk-fukk yooya muy lu kenn du lim yàlla mën na ko am na ko te lépp jox na ko sëriñ bi te li si sëriñ bi tim li si ñun la li si yàlla si sëriñ bi la ñu ñaanal sëñ Cheikh Saliou yàlla na fi yàgg loolu te wër sëñ ji de yàlla na ko fi yàlla bàyyi moom aussi mu yàgg fi loolu te wër te ànd ak euh, sëriñam bi sëñ Cheikh Saliou ci liggéey bi ñu ngi leen koy ñaanal bu baax a baax a baax di ko ñaanal ñëpp ñi nga xamante ne teew nañ fi ci taxawaay beeg jàppale beeg lépp lépp gis nañ ko sëñ Touba mi mi nga xamante ne moo tax ñuy liggéey yàlla na fay ñu bokk le barke Cheikhul Khadim di ñaan sëriñ ji li mi itam lépp lu mu ci man ren suñ borom dolli ko mu man lu ko ëpp ndax liggéey bi ñor na ko lool koo xam ne bu la sëriñ bi joxe liggéey bi da ngay togg ay bernde woo jëwriñ yëpp ñu ñëw nga berndeel leen ba noppi doon leen a wax ne jot naa ndigal ci sëriñ bi loola bu la ñorut woon ko def ndigal nag mën na laa ñor ñu sant la ko nga dem defi ko waaye koo xam ne bu ñu laa da ngay dem xel koom yaag sa mbooloo li ngay njëkk a def mooy dajale leen berndeel leen ba noppi doon leen a wax sëriñ bi daa joxe ndigal kooko li ñor na ko kon nag ñi ngi ñaan lépp lu la sëriñ bi doyee yow ak sa mbooloo yàlla nanga nga man lu ëpp bala moo ñëw di ñaan ci daraja yi sëñ Touba itam nga yàgg koo taataan ndigal lii ci sëriñ bi te sëriñ bi yàgg la koo jox nga yàgg koo ànd ak mbooloo mi nga xam ne ñoom ngay àndal di ñëw ci liggéey bi te saa buñ ci noppee rek yàlla nu jural ngërëm jural ñu ndam jural ma de di ñaan daal sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Saliou yàlla na fi yàgg lool te ànd ko góor ak mbooleem njabootu sëriñ saaliw gi ak mbooleem ñi nga xam ne dañuy yëngu te lislaam rek tax jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di siyaar di Eh, jox nuyoo bi gën a kawe te di ci jiital nag ak cant cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye am amul fu muy yem ndax ndigal li ba mu tàbbee jóge ci sëñ bi yegsi si si ñun jëmm yu xeebu yii boobu lañu am yaqin ne dina matee ni ko sëñ bi bëggee ndax ndigal day ànd ak ndimbal te ba ndigal li tàbbee ci suñu jëmm ji lañu xamoon ne euh, sëriñ bi dina ci def dugal loxoom ak lépp loo xam ne am nañ ko ci Pastef lu mu néew néew néew sëriñ bi dina ci dugal loxoom ba liggéey bi mat waaw ndax bañ ca njaal benn ga ba mu amee ñi ci war a diisoo ñëpp diisoo nañ ci ci wàllu jëwriñ yeeg ñëpp fépp fu taalibe nekk rek diisoo nañ ci ak ñoom ba ñu tënkee ko nuñ ko tënkee yàlla dogal nag bi ñu yegsee it nañ ko tënkee woon sunu borom dogal na ñu mënee ko noonu na ko sëñ bi bëggee it am nañu yaakaar ni defee nañ ko defee nañ ko nii di xamalaat nag mbokk taalibe yi ne leen liggéey bi sëriñ bi di woote bëggu ci lu dul dimbali doomu aadama yi yërmande gi sëñ Saaliw doon sàkku ci sunu borom mu yërëm ko doomu aadama yi ci foofu la teg tànkam rek moom mi suñu sang bu tedd bi di sëriñ Cheikh Mbacke moom seriñ Saaliw di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér yàgg ñoo woo ci liggéey bii nag yàgg koo wuy si ndax liggéey Serigne Touba dong nga fi des te xel koom moom ñëpp xam nañ ni liggéeyal Serigne bu wér la waaw ndax ki fi nekkaloon Serigne Touba muy borom jamono ji sëriñ Saliou moo ko sàkku woon ba am ko di ci woo nit ñi ba pare newoon na ku ñëwul xel koom rek ma jaaxal kon jëm mi ñëw di liggéey bi mën na cee sax am na ci solo lool ndax di nga ñaq ñaqal sëriñ bi. waaye li ci ëpp solo mooy teg ci sa tànk te nee na bu ma ma leeroon ni it ñëpp teg nañu seen tànk xel ko ma dakkal woote bi foofu rek la sëriñ bi teg tànkam di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér yàgg ñoo woo ci liggéey bi ndax amuñu lu dul lii lii rek a fi des muy liggéeyal sëriñ Tuubaa yàlla nañ suñu borom dolli tawféex di sant mbokk taalibe yëpp nag ku juum waaw bi ñu wooyee ba léegi amatuñu nelawuñu dalluwuñu lekkuñu ñenn ñi sax euh, da nga leen di xool yërëm leen. waaye lii rek lañ ci bëggoon mooy liggéey liggéey bi ba mu yegg euh, niñ ko bëggee ñu amee ko ni di am njort nag ne sëriñ bi euh, niñ ko defee ni dina ko bëggee noonu waaw ngeen jëf aouzu billahi min aseytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ali wa sahbi wa sallama tasliman akramtani ikrama mamma safal wa kullu ma artu min kan fal ataytani ya rabbi min ladunka sikranaki man faradito anka باركت لي يا ربي في عروفي وغيرها وجئت بالمعروف باركت لي يا ربي في حروفي وخيرها وجئت بالمعروف لو أذيره بذا زناء لو غتابي بلا عتاب ولا إجاب ولا عناء خير البرايا يا ذا المزايا يا ذا العطايا سمي بنائي عند الزرور بلا خرور سبي بروري نوي فنائي فيك أقول ولا أهور فيك قديم أيد أقيم ولا أريم ثالث ذئي أن مجيري من الغرور ومن غرور داي سقائي سند مكاني ست أماني هبلي ثماني بذي البقاء عند ذلوقي إلى المليك مع الأفوك موت النقاء أنت الجميل لك الخليل أنت الرسول بلا جراء لك لساني مع الجناء ولا أبالي كالشعراء أنت السبيل بك الوصول لمن ينيل خير سرائي عجبت وريات الرخيم كما ترائي كالكبرائي sëriñ Abo sëriñ jiiri nee na mi ngi lay yónnee nuyoo mbooloo mépp ak siyaaru mbooloo mépp ci kilifa gu tedd gu baax gi muy sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Saliou bu loolu wéyee nag sëriñ Jili Touré nee na mi ngi sant yàlla bu baax a baax di santaatit sëriñ Touba di sant it sëriñ Saliou waaye nag di sant sangam bu baax bii nga xam ne. moo fi wuutu Serigne Saliou tamat ko sëkk muy Serigne Cheikh Mbacké ne mi ngi koy sant sant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem bu mënoon a wax sax day wax fa cant yem fa la tàmbalee jëm kaw waaye sant nag amul fu mu yem ndax li fekk teraangaa ngi am li fekk xéewal a ngi am li fekk dolli ngi am sant day am waaye ne mi ngi sant ci kent laayal kàttanam Serigne Cheikh Mbacké mi nga xam ne moo koy tànn mu neex ko mu di ko woo ci liggéey bii di ci tudd aw turam nee na loolu mi ngi ciy sant yàlla bu baax ci ñëw gi nga xam ne mi ngi ko ci ñëw tey ànd ak mbooloo mi yépp nee na nag mbooleem fu waay mën a jóge ñëw ci liggéey bii gis na la gis na sa taxawaay ci góor ñi ak ci jigéen ñi ña gën a mujj defee ne waxuñu leen ci ñoom lañ tàmbalee gis na ñépp ku ci ne li fi daj ak sa mbooloo mi nga indi ak coono yi nga jànkonteel ba ak si fii ci dal bi lépp xam nañ ko waaye nag li tax mu neex mooy kenn ku ci nekk wóor na la ni koo dajal fii ci mbooloo mi bu ëllëgee bu la bëggee yónni képp du ko man ndax la doxoon seen diggante moo dañ sëriñ bi moonu woo ñu wuy ko ci ndigal kenn ku ci ne da ngaa dindi nawloon te teg fee dindi morooman te teg fee dindi àndandoo teg fee dindi xarit teg fee ñun ñëpp lu ñu gënaloon mooy ñu nekk ci ndigal li ba sëriñ bi ne jërëjëf nii laa ko bëggee te la ci lañ nekk ba yàlla defal na ko nu amee ko nii kon nag coono yiñ fi daj nan ko fàtte te xam ni bisa ngay ñëw boo xam ni ku koy jéem a def sa bopp it di ko fàtte ndax sëñ Tuubaa ku liggéeyal mu fay la te it waxoon naa fi daaw ne yéen ñi ñëw fii du ngeen moroom moroomu ko fi dul ñëw mbaa ko fi mës ta ñëw ay jaami yàlla ami néeg ami lal ami soxna am mbooleem lu nit ku baax di am amum xel wuyu si fii tëdd ci àll bi di fi fanaan subaak ngoon guddeeg bëccëg lu mënta ñàkk ba mënta ñàkk ci li ngeen laaj mooy ndoxum naan ak ndox mu ngeen jàppoo julli te sangu war na leneen nag leneen war na loolu lépp nag ngeen jaay ko ngir bëgg gi ngeen bëgg sëñ Tuubaa te muy dëgg ci yéen kenn ku ci nekk nga ñëw fi ñu jox la ay million ni la jërëjëf tam wóor ni sëñ tubaa tax ñu wax la ko moo la gën a téeméeri junni yoon lu boobu baat nag la sëriñ bii yor dina ko indil noonu kon nag na ko mbooloo mi teewlu te déglu ko te xam ni jërëjëfe sëriñ bi mooy faj saa sunu aajo jërëjëf ju bàyyi ko ci sëriñ bi mooy suñ caabi ci bunt yi ñuy ubbi muy të ku ko fi dégg rek xamal ni sa lépp baax na te noonu la ma sa demee nag waaye sëriñ bi dafa wax ni ñi ngi sant nag mbooleem ñu jóge ci région yi ñu jóge Jobaas ñu jóge Ndar ñu jóge Pout ñu jóge Sibi Xutaan ñu jóge Thiès ñu jóge Tiwaawan ñu jóge Bambey ñu jóge Njaaréem ñu jóge Dakar Pikine Géejawaay masaalik ñaari tali benn tali bàyyiwuñu kenn ñépp sëriñ bi gis na seen jëf yëg na seen taxawaay te it nañ xam ne liñ fiy def sëriñ bee ñu ko gën a xam ca fam nekk wax naa fii ne liggéey bi luñ ciy góorgóorlu du doy ndax bañ koy ji di tracé tool yi ñun ñi ñëpp ci ñun bokk ñi ci kenn yëgu ko biñ koy bayaat ak di ci sonn ñun ñi ñëpp kenn yëgu ko biñ demee ba mbooloo war te sëriñ bi leer ko ni lii ndimbalul nit ñëpp la ndimbalul jaam ñëpp la ci la nu door a woon ñu ñëw leen ngeen jariñoo ko mag moo ragal yàlla nag moo neexal a liggéeyal te ñun kiñ ko séqal ñëpp xam nañ ne daa ragal yàlla te du sànq jëfi kenn yàlla nag lépp lu ko waay jox du juum du jaawale te du sànq moo tax mag mi ngi koy séqal muy kilifa la ngay wéeru ci moom di ko wettal saw ñaq nay leer waaye yéen fi ngeen ne bu leen ci yokk bu leen ci jaaxle bu leen ci laaj kenn xalaat bu leen ci déglu kenn li wér te wóor mooy dégg dëgg seen coono yi ngeen sonn fii ci yéen la bàyyi koo dal ci suuf waaye na xam ne sëñ Saliou yëg na ko bu wér sëriñ Cheikh mii lépp lu waay di jëf ci moom na la wóor ni suñ borom a tàllal nga teg ci loxoom donte ne gisoo ko nag ndax fu wér lay def ab liggéeyam loo xam ne nag kuy wax xañ nañu la ko gën a xamam koy dégg kuy xool ñëpp a yori bët di ko gis yooju wax jërul guddal sëriñ Jili daal moo waxoon ni nañ leen sant yéen mbooloo mi ci góor ak jigéen ñi nga xam ne yéen a fi ñëw te teew fi te ñëw jàppale ko ci lii nga xam ne sëriñam bi moo ko ciy woo noo ngi ñaan ci dara ji sëñ tubaa yàlla na ngeen ko yàgg gunge ci woote bii te nee na nag nanga ko xamal ni ko mboolem lim weesu fàtte na lépp lim mël moo ko ëppal yitte waaye du jëf dara loo xam ni day rëy ci moom mbaamu di ko naw lum jàll fàtte na ko sëriñ bi rek ak la ca kanamam di ak bëggam lay fexe num ci sëriñ bi jote ak nu ko sëriñ bi amee te lu neex yàlla rek lay doon kon nag nee na mi ngi sant bu wér mbooloo mépp di yóbbante sant yi ci sëriñ bi di ñaan sunu sëriñ ba sunu sang ba sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ saaliw yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér na mbooloo mépp wax ne sëriñ seex Saliou Mbacke yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér jërë jëf ñu déglu ndigal nag sëriñ Abo nee na moo ngi leen di jottali nuyoob sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ saaliw nee na sëriñ bi mi ngi leen di sant bu baax te it mi ngi leen di gërëm nee na it mi ngi leen di ñaanal waaye nee sëriñ bi it mi ngi sàkkuwaat ci mbooloo mi ñu ñaanal ko sëriñ Abo dafa wax ni sëriñ Jili mii nu àndal sant gi nga xam ne moom la nu sëriñ bi di sant mi ngi koy jaarale ci moom. mu ñëw ci mbooloo mi nga xam ne ñoom lay sant ndax loo gis rek day am ku nekk ca bopp ba ñu di ko tudd rawatina nag jëwriñ ju mel nii nangoo nii moo tax lii cant nag tey jóge ci sëriñ bi sëriñ aboo nee na mi ngi koy jaarale ci loxol sëriñ jili mi nga xam ne moo fi dajale mbooloo mi de wax ni nag xam na taxawaayu sëriñ jili ci digganteem ak sëriñ Cheikh xam na cofeelam sëriñ jili mii ci digganteem ak sëriñ Cheikh nee na day dafay mel ni la daloon Cheikh Ibrahima Fall ci sëñ Touba ci biñ ko ko tuddalee sax mu taxamte ko dafa mel ne dafa dal Serigne Jili mii ci digganteem ak Serigne Cheikh moom sëñ Saliou àgg na ci buñ ko tuddee léegi nag mbooloo mi sëriñ Abo dafa wax ni li ma wax léegi muy di seede ci diggante sëriñ Jili ak sëriñ Cheikh moom sëñ Saliou di wax ni dafa mel ni la daloon Cheikh Ibra sëriñ Touba daf ko dal nee na loolee dafa mel ni dafa dal sëriñ Jili mi ci digganteem ak sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou àgg na ci buñ ko tuddee sax dafay mel ni day neex ci moom ba day tàqamti ko te loola muy lu wér di lu dëggu nee na nag bañ fi ñëwee ba léegi ci dem ci mbooloo yi. lañ fi nekke jaar nañ barab yu bari dem nañ ci mbooloo yu bari waaye xam nañ ne mbooloo mu ci nekk rek ñi leen jiite wala ka leen jiite day feeñ ca mbooloo ma te nee na bi mu ñëwee fii gis na mbooloo mi seen takku seen pas-pas ak yar bi ñu àndal ak teggin yi te ba mu xëyee ba léegi ci mbooloo yi lay jaar kon nag nee na na ngeen xam ne nii ngeen mel mooy mbooloo mi nga xam ne moo noppal sëriñ bi ci yar ak teggin ak ci pas-pas ak ci passeef nee na daal sant mënta weesu sant nañu leen rawatina nag cant gu jóge ci sëriñ bi wax naa ni liggéey boo xam ne ki nga koy liggéeyal mi ngi toog waaye mi ngi jàkkaarloog yow danoo baax rek bëgg a dalal xelu nit ñi waaye xam nañ xel ni liñ jëf lépp sëriñ bi nangu na kon nag sëriñ Abo mii nee na sëriñ bi sant na leen gërëm na leen di leen ñaanal yàlla nag lu ngeen man ren ngeen man lu ko di ñaan itam balaa ndigal a jóg di ñëw ci yéen yàlla na ngeen mën lu ko ëpp ci góor ak jigéen yàlla faj seen aajo defar seen mbir zaahir ak baatin te def leen ay dëgg-dëgg taalibey sëñ Tuubaa lu ngeen mën a am rek yàlla bu ñu ñàkk sëriñ bi lu nu mën a am yàlla nañu am sëriñ bi ci darajey sëñ Tuubaa tañ yàgg koo teew ay at yu baree bari ngeen dégluwaat ndigal nag bu dee sëriñ bi dafa am lu mu ciy dolli mu wax bu amul lu mu ciy dolli mu ñaanal sëriñ bi nee na xanaa ñu yàgg koo def te yàgg koo fekkee ndigal li yàgg a jóge ci sëriñ bi ñu yàgg koo taataan te yàgg koo liggéey si déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet nangu leen ñaan nangu leen ñaan nangu leen ñaan ولو برأي سلي لسان أو جنالي آمين يا رب العالمين سمع أماني وتفرأي آمين سنيرا لي غتبيرا آمين يا رب العالمين بلين يقل لي من يرأي أنا اغتيالي من الغلالي ومن الغلالي آمين يا رب العالمين